Macky Sall dégage tu es incompétent dégage Macky Sall tu es incompétent dégage Macky Sall mënoo dara Macky Sall kenn bëggu la demal Macky Sall da ngaa échec maanaam mathématicien da am lu ñuy wax ensemble vide maanaam Macky Sall ensemble vide la maanaam mathématique boo ñëwee ci mathématique daa am ay équation yoo xamante ne maanaam équation yooyu noonu ensemble vide la maanaam Macky Sall mooy amul solution Macky Sall égal ensemble vide maanaam lii nii Macky Sall xool wuyu ma man université Cheikh Anta Diop laa jógee yow université Cheikh Anta Diop yaa bëri représenté minorité bi Macky Sall kenn bëggu la demal kenn lijjantiwu la Macky Sall mënoo mënoo dara Sonko moo la mën Sonko sa baay le Sénégal, la, population, ils ne pas avec J'ai pas besoin, parce que c'est répétitif. On sait déjà ce qu'ils Donc c'est pas important. pour moi. Mais ñëpp xam nañ que ay complot donc dossier bi yaax ñaar tout le monde le sait Sénégalais yëpp xam nañu donc c'est pour juste faire de la politique pour pour éliminer Ousmane mais incha allah 2024 président Sonko rek incha allah. bon genre le message que j'ai à lancer aux jeunes c'est pour leur dire que il faut ñu yeewu parce que s'il y a des ay concerts BJ ñu rempli ko bu ñu wootee ay rassemblement on les voit pas. que li c'est pour eux c'est pour nous c'est pour la jeunesse donc c'est important bu ñu wootee ay rassemblement les jeunes puissent venir voilà ok merci. man maa ngi jóge ba Seck Mbao dañoo kaay ci Macky Yeah. ñaari tali ñëw fii pour feete concert bi parce que suñu président moo ñu ko wax président Ousmane Sonko mu sell mi dañ koy bëgg ba 21 heures 30 incha allahu rabi bu soobee yàlla ñu ngi jóge ba ñaari tali waaw. amul duñ ko déglu duñ ko déglu duñ ko déglu li muy wax amul njëriñ li muy wax amul njëriñ duñ ko déglu. kon déglu woo benn yoon du tur bi. du ma ko déglu du ma ko déglu kii moo ñu ñor parce que alxuraan duñ ko déglu amul benn njëriñ ci ñun parce que teewaluñu kii moo ñuy teewal. njëriñ ci ñun ñun li muy wax dégguñu ko moom moom ak waa njabootam la mais sëñ naa Ousmane pour askan bi la moo tax ñu doon ñoom ba 2024 incha allahu rabi bu soobee yàlla waaw. dégg ma bu baax mu bañ a tas suñu yaakaar pour mu tas suñu yaakaar yaakaar bi ñun dañoo am ci moom yaakaar sëñ naa Ousmane dañoo am ci moom yaakaar sama place laa bàyyi sama place laa tëj ñëw damay liggéey ñëpp ñu ngi may ñu may wax lu nekk ndax sëñ naa man sëñ naa Ousmane laa yàlla ko yàlla defal jàmm bu mu des suñu yaakaar yàlla bu mu des billaahi wallaahi taalaay ma ne humiliation bii am humiliation bii Macky am bés bi ngay waxee ak population di la wan bukkulu la doyal nañu ci yow génn ci mbedd mi di collectionné di dëgg ay boor parce que alxuraan benn président au monde mosu ko am ku leen ci Macky Sall wallaahi ngir yàlla sëriñ si nañ ci wax Macky Sall dem bàyyi suñu bët danoo sonn na loo taay naa nga jóge ba sax mbaaw lii rek moo ma indi ma pare damay ñibbi ndax loolu doy na ci Macky Sall bàyyi nañu ci nag barke alxuraan